jërëjëf imaam saxiir ni yow yaan wan baay laay xamal nu risaalam taa ba nuy sàmma dénkam ba imaam yaa ñagub yoonam farañ fàcce ay waxam imaam yaa dëggal wooteem lënta ba ku yer taskira ak gëm woolu yer aaxiru zamaan ziyaar baa ki sayfullaahi ni ñiin moo di yaaram ku yer seydi rooxu te xol ba woyof negate yidina isa dilam laame wacce ba imam yaafisos ayda rawajal ni gaddo tay darapo bi ñin sampoon di wootee ka kañ buurbaa na buur yokk ay leer fay te ñaagal imaam saxiir bi jaayi imaam xeewal nu nuy aw tànkam baam na la buur bi yokkal yaa tarataak njaboot geeg doo muy saate ngeen may doo jibril ndimbal booba taxawloo ni naa fi yal nanu yàlla may tawfiix defal num ndimbal nangul nu bi jaahi yonen ba